nag jàmm mbokki internet bpactu.com ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal comme ni ngeen ko gisee nag ñoo ci lendemain combat moom moo fa xewoon ñu ci bari doon ko ñaawlu waaye nag dañ naan lépp loo xamante ni dañ cee bëgg seete rek dangay dem fekk ki nga xamante ni moom moo ko teewee mu wax la mbir mi na mu demee gis nañu mbir mi ba muy xew ni suñu papa ñoxo baay mi ngi woon sur les lieux dendoo nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di tëggkatu si tey ñu ñëw laaj ko lan mooy version ci li nga xamante moom moo tax démb comme combat bu Siteu ak Papa daal di yàqu ginnaaw bañ ko préparé lu ëpp deux ans papa dalal naa la. Euh, maa ngi lay fay di la ñaanal di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm yow dangay kenn ci man ndax da sama doom. Mm-hmm. Euh, lu ma bañal nit boo dikkee ma nungul la ko yow. Mm-hmm. waaye démb képp kuy bëgg làmb képp kuy sportif. Mm-hmm. am nga lu la metti démb naqar woo xam ne nag eh, ñi bokk làmb ñëpp ko bokk waaye jaam ak dogalam jaam ak definam yàlla ak dogalam jaam mën na bëgg loo xam ne tey bëgg-bëggam lay doon mais yàlla mooy dogal làmbi démb ji nag nekk na lamb joo xam ne képp kuy amateur képp ku bëgg làmb même téléspectateurs yi amuñu lu leen neex dem ndax loo xam ne dañ koy euh, am na ñaari at ak ñetti weer wala ñeenti weer doomu aadama yépp di ko xaar daal yaakaar naa ne warul woon a mujj moo tax daal rafetluwuñ ko rawatina nag man mi nga xam ne ci biir géew bi bu làmb dingootee doo dégg kenn ku dul man kon yaakaar naa ne daal vraiment am nañu lu ñu naqari démb daal mhm. waaw. comme ni nga ko waxee yor sa micro naan ayca ayca ayca ayca ba jékki-jékki coow la ñu sa kaw. ban témoignage ngay def ci li fi parce que démb am na ñu naan Papa moo tooñ ñi naan tëggkatu Siteu yi ñoo yow mi nga xamante ni yaa dendoon nag ñoom assisté ko moment bi nga xamante ne sax journaliste mënu woon daw euh, jël li nga xamante ni moom moo di image lan nga fekkee démb. xam nga lamb amul règlement bi CNG dikkee la def làmb règlement man diggante mbay Gueye papa papa Diop maa daan tëggal Papa Diop mais incident bu mel ni dal na ma ci biir làmb parce que bi may tëggal Pape Diop contre Mbaye Gueye stade Iba Mar ña ko fekke woon deewuñu ba jeex ñu fi bi ma tegee samay ndënd war a tëggal Pape Diop Mbaye Gueye war a ñëw 17h. Mhm. Pape Diop war a ñëw 17h15. Mhm. bi mbay Gueye tuusee ba pare dafa waax wut si ma. Mhm. dikk fi ma teg samay ndënd mu ne ay eh, ñoxo jógal fi abal ma fii ma ne ko fii duma fi jóg. géwél yàgg naa fii duma fi jóg laa ko wax mu ne gaa yi na fi jóg xaw ma kan moom ma yoxoo su dóor sama ñaari bañ wadd ci biir làmb ji keroog bu may tëgal Pape Diop dama ŋaaw parce que booba direct di génn ci man bari mais loolu yàgg na am ci làmb waaye man dama gis ne euh, munoo wax ne kii moo tooñ parce que làmb dafay loo xam ne euh, ñiy far duñu comprendre ki far ki bëgg doomu aadama euh, bëgg-bëggu ka bëgg rek lay wax mm-hmm. mais du wax la vérité te la vérité est le verbe de Dieu démb daal làmb ji nekk na làmb joo xam ne man dama gis ne euh, tambour ñaari tambour major yi fi ñu place placé du yoon Papa Sow dafa féete à gauche mm-hmm. Siteu féete à droite kon yaakaar naa ne couloir boobu nga xam ne mooy couloiru Papa Sow fala la tàngoor majooram ne couloir bi cité euh, euh, ne fa ay tàngoor majoor waroon na ne ay tàngoor majoor mais Papa Sow amul woon intention pour ñëw yàq làmb ji daf doon ñëw di saraxe si di sarax si comme microcentral bi ak woykat yi ñoom la doon sarax si bi góor a waaw bi góor a ñëwee gars yi dañ ko ne doo jaar fi mu wàññi ko moom dem ci papa Sow papa Sow ne ko sarax bi dañ ko war a saraxe bi papa Sow di jàll nag xale yi ne ko doo jaar fii ci la incident ba am mais bu fekkoon ne tambour majoru papa Sow ci côté am la féete muy Baye Demba moom mi nga xam ne tey moo def jëye ji féete ca euh, couloiru Cité kon incident bi du am. mais Gora Sock ak tëggkat yi kan moo njëkk a songu dóor. déedéet euh, Gora bi mu dikkee dañ ko ne doo fi jaar arkat yi ñoo puus Gora Sock Gora Sock ne ko génnal fi mu génn dem ci Papa Sow Papa Sow ne ko sarax bi nag dañ ko war a saraxe jóg moom demal bopp di ñëwal boppam ci la. Euh, affaire bi am mais je crois que kenn daal warul mën a soxor soxor goo xam ne ak sabar ni mu diise nga dóor ko nit ci jë yaakaar naan daal loolu daal warut a mën a am. kon man xaw ma sabara ko dal xaw ma lan moo ko dal parce que loolu moom teguma ci sama bët mais maa ngi lay wax ne làmb dama ci daj loo xam ne lu méttee méttee méttee méttee la parce que toujours grand combat dañu indaale seen tambour major mais ki indaale tambour major am tëggul làmb ji làmb ji dafa am batterie central waa Kër Pape Seck ñooy batterie centrale lu làmb ji kon ki indi mbërëm bu mbërëm de bàkku mu tuusal ko buñ kone ne téyel sabar yi mu téye sabar bëkkale tuus moom itam ñu ne ko téyel sabari yi ñëpp dañoo war a téyel seeni sabar ba nag ñu présenté grand combat bi bu ñu présenté grand combat bi nag ku mu neex tëggal tëggal ba minuit bu la neexee mais toujours dama naan may leen ñu may leen ñu may leen kenn du la mën a déglu kenn kenn kenn du la may. mais benn ñoxo nee nga Papa dafa jugoon di sarax ñi nga xamante ñoo yoroon micro yi ak ñooñu alors ci explication yi nga xamante ne euh, moom la tëggkatu Siteu bi joxe mooy que ni dafa yoroon benn béjjën bu ñuy woowee béjjënu xawma xawma nan lañ koy woowee nee na benn béjjën la béjjën boobu noonu moom la wax ne béjjën bi moom moo ko gaañ béjjën boobu Papa Sow lan la doon jël béjjën bi di ko utali ci côté ñoom Siteu euh, nee na nee nañu ci li tambour bi wax nee na moom sànniwu ko sabar dóoru ko mais boo xoolee ak acte yi nga xam ne moom la réseaux sociaux yi génne seen nañu sabar xawma sabar gi dal na ko xawma sabar gi dalu ko yàlla rek a xam loolu yàlla rek ko xam booy bi nee na moom laa sànniwu ko sabar dóoru ko waat yàlla ak yonent bi mais daal euh, je crois que ñi ànd ak mbër yi muy supporters yi muy accompagnateurs yi muy muy muy entraîneurs yi muy supporters yi war nañoo xoolaat seen bopp parce que ki préparé combat am deux ans et et mois ba combat bi ñëw tey ni lamb ji feese bi stade bi biñ ko sampee ba nëgë ni lamb ji mës a feese nii ci àdduna kon waroon nañoo satisfaire population bi xam ne ñoom ñaar bu fekkee ne tur la Balla Gaye leen ëpp bu fekkee ne tur la Modou Lo leen ëpp bu fekkee ne tur la ba Baldé leen ëpp tur ak ñeneen ak ñeneen kon yaakaar naa ne buñ amee tey chance bu mel ni Sénégal gépp génn population bépp génn te damay wax toujours ne dafa am foo xam ne yaakaaruñ ñu fa ñun màggat ni ndaw ñi rek lañ ci yaakaar muy réew mi ak diine ji réew mi ak diine ji nag buñ ci yaakaaree ndaw yi ndaw yi nekk ay ndaw yoo xam ne ay ndaw yu violent lañu di def ay violence loolu nekk na loo xam ne bu ëllëgee ñun sax bu ñu tëddee ci bàmmeel euh, sunu xel du dal moo tax daal xale yi war nañu seetaat fi ñuy teg seen tànk xam ne promoteur bi gëm yàlla mënta weesu baykat ak promoteur baykat bi dafa jël ala euh, alalam suul ko ci suuf di xaar yàlla promoteur bi dafa jël alalam jox borom bakkan muy dem te xamul kañ la yàlla yi nangu bakkan bi kon gëm yàlla mënta weesu loolu kon boo bu ñu gëmee yàlla ba ba ba ba teg lu mel ni àdduna bépp ñëw autorité yi tey ki ñu tuddee bés wul loolu muy maam booy jaaw xale bu yaru la xale bu jox doomu aadama yi cër la ànd ak le ministre des sports ministre des sports bi mu gëjee làmb yàgg na bëgg gu bëgg làmb en tant que sénégalais ah moo tax mu ñëw démb encore Mame Boye Diao di wóllëreem mu dikk assisté ak ñi newoon ci kaw ñëpp nag ñi promoteur yëpp nga ñoom Abdou Aziz Ndiaye ñëpp ngi woon ci kaw du Diagne Diécko le président de des amateurs mi ngi woon ci kaw bari na ñu ay kilifa yu nekkoon ci kaw kon yaakaar naa ne xale yi waroon nañoo sàmm seen bopp sàmm itam ki nga xam ne moom lañ tudde bés bi mais daal man ñaawlu naa par li man na naqari nag mooy kan mooy yàq làmb ñu ne géwél yi te géwél war a defar xanaa xamu ne foofu ñu def arène nationale bi le le huit février mille huit cent trente foofu toolu xare la woon foofu boo déggee ñu naan xare bi ci Pikine foofu la ñu defee xare bi foofu arène national bi ne moo tax wax naa ko le président de la république ne ko juumoo Senghor bëggoon na ko Abdou Diouf bëggoon na ko Ablaye Wade bëggoon na ko mais ci sa ay la ko yàlla dogale kon fii bu fekkoon ne toolu xare la woon ñu dikk samp fe arène nationale bi te làmb di xare mais xare bu noble xare boo xam ne xare jàmm la parce que mbër yi di ñu ay ennemi ay adversaire lañu te kenn ku ci ne daan daanu rek a fi ne ko daan tey boo ëllëgee mu daan la Falay Balde bëri naag Landing Jàmme dix fois fukki yoon ku nekk daan sa moroom quatre fois ñu match nul ñaari yoon nga xam ne ñooñu bëri nañu dañ dañ daan bëri samedi euh, ñu ne ver euh, làmb ji njaax la mais léegi njaax amatul ci làmb dara amatul ci làmb xam nga dem ni ñu def amateur yi metti na dikk ay trois heures dagg sa billet ñëw toog di yuuxoo ko tàccu ah lamb ji mujjee queue de poisson loolu metti na trop trop trop trop trop xale yi mbëri surtout mbëri wax naa ko démb ci micro central bi ñëpp di ma dégg nee naa leen yéen accompagnateurs yi xool leen ni ngeen def yéen supporters yi surtout bijou bi ñu defal xale yi damm chaise yi ca kaw di ko sànni ci suuf loolu ñaaw na lamb ji buñ ko yàqee yàqaluñ ko kenn man ak sama morom kenn ku ci ne am na ci leneen loo jàpp lu dul làmb ji ah mais mbëri koo ci dëkk micro dëkk koo dëkk mu na làmb ji rek laa yaakaar waa ki yaakaar làmb ji nag jëm foo xam ne fa lay liggéeyee bala moo dem na wax ay accompagnateur am ne leen ah fii ma jëm day jàmm laa fi bëgg na wax ay supporter am yéen ñi ma bëgg itam fa ma jëm wutal leen ma fa jàmm mais toujours accompagnateur yi dañuy indi man li may daj ci làmb dem ba yéemu sax mhm. parce que da ngay gis ko ànd ak mbër dëkk di saaga waa Kambale di leen xëpp ay saw di leen sànne ay lu ne la ñuy def lu boo déggee ay ca ay ca jooju may wax mhm. ñu bari yaakaar nañ ne damay yàkkamte yi pour combat bi am déedéet di nga mbër mu nekk cinq minutes lañ la may nga tuus te bu weesoo cinq minutes minute bu ci topp dañ lay dagg xaalis boo déggee ma naan Aïcha Aïcha Aïcha ñoom laay défendre pour seen xaalis bañ a dagg mais da nga ciy gis nga naan nit Aïcha Aïcha sax mu yaakaar ne da nga ko yàkkamti wala beneen affaire man booy ànd ak mbër yi da nga gis koo xam ne daf may saaga sax ah nangam nangamtaan naan Aïcha nii fek man yow laay défendre yow boobu man yow laay défendre pour sax xaalis ñu bañ koo dagg ah mais xale yi daal waroon war nañu seetaat seen bopp surtout mbër yi nañu waxtaan ak seeni i accompagnateur di waxtaan ak seen i supporter lamb ji mooy seen liggéeyukaay bu ñu tëjoon lamb ji tey mbër yu baree baree baree bari ku ci demul por ba yenu ji mbaa nga def menebar doo am dara ah menebar boo yendoo gas mbaa nga yendoo peele ba ngoon jot du weesu ñeenti téeméer ah lamb nga man bëri léegi am cinquante millions wala cent million nañu seetaat fi ñuy teg seen copie. papa li am bañ am responsable. Euh, bañ a am responsable. soit dañ naan Papa Sow mooy responsable soit ñu daan ni euh, ñi ànd ak Siteu ñoom ñooy responsable ñenn ñi nag moom dañ ne takk der yi ni ñu defee organisation bi moom moo jaar yoon CNG am na ci wàll ndax barrière yi bu ñu defee camp wu fii. bëgg a teg euh, euh, nu ñu koy waxee. tàmm ma jaram waaw euh, ci ci ci beneen femme bi waaw. du du du du luy sotti. day jaxasee. kan ngay jox toor bi exactement. man te ñett ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko sëy. man li may wax mooy organisation bi organisation bi moo forcé te ñu baal ma tambour major bu ñëw bu ne. ñu defal la kaaf kaaf boo xam ne ay barrière la doo génn barrière bi. mais xoolal couloir bi nga xam ne fi la mbër mi war a jaar mbër mi mën naa wër làmb ji man ngaa dem ci sëriñ mun ne la il faut nga wër làmb ji boo dikkee fa nga war a jaar ñu ne doo fi jaar mën naa andi incident te loolu moo provoqué incident bi couloir bi papa papa saw ne fa la ñu teg tambour majoru Siteu couloir couloir ba Siteu ne moom lañ fa lañ teg euh, tambour majoru euh, euh, papa saw muy bay Demba. ku ci dem da ngay wiiri. waaw ku ci nekk booy dem da ngay wiiri waaw mais ki bëgg a euh, euh, wër nag bu bu fa jaaree parce que waruñu wàcc waruñu wàcc ñoom normalement tambour major yëpp dañ leen a war a aj aj ci kaw ñu ñu jigéen tribune bi kuy tuus ja euh, am na foo war a jaar mais mbëri bu ñuy tuus couloir bi nga xam ne fi la mbëri war a jaar pour wër ah parce que ñaari enceinte la enceinte bi nga xam ne mooy mooy fa la ñuy bëre ak enceinte bi nga xam ne fi la ñuy wëre enceinte bi nga xam ne nag fi la ñuy wëre buñ ko baree ku fay bëgg a jaar ku ne ñoo indi la problème lii moo indi problème yi manque d'organisation ci installation bi ñu installé ak couloir bu ci ne sa tambour major fa la war a ne. léegi te dama am ñaari question yoo xamante ne boo xam naa yooyu question internet sax. parce que nit ñi démb ci réaction boobu la ñu nekkoon premièrement Gora Sock ba mu dikkee ñu indi ko Guité Ngaas est-ce que Papa saw waroon na def demi ba di fa coow wala Papa saw moom moo waroon a temporiser mbir mi xool naka lay def ba jaar fi mu bëgg a jaar wiiru ko def ne neen xam ni combat bi combat ndax ñu ci bari dañ koo sasoon ñu ci bari dañ ne woon combat bi combat bu capital la mais Papa Sow moom moo ci ëpp pourcentage bi nga xamante ne moom moom la yenu ci boppam. xanaa xamoo ne boo day ñëw làmb lu ci bare bare bare bare da nga koy xam avant ngay ñëw làmb man làmb ji avant may dem làmb làmb ja ku man woo na ma ne làmbi tey ji du àgg te boobu xaw ma lu tax mu ne ma du àgg mais daf ma ne làmbi tey jii nga jëm du àgg waaw du àgg ba wax ma ba ne boo présenté ñaari mbër yi bul seetaan combat bi boo seetaanee ñaari mbër yi rek génnal dem kon làmb ji xamoon nañ ne am na ñu gis parce que li yàlla may doomu aadama euh, may ko doomu adama yëpp ku ci nekk am na lu la yàlla may mais daal man daal li may waxaat ak xale yi mooy bu ñu bëggee làmb jëm ca kanam nañu moytu scandale yu mel nii question boobu lan nga si wax ba xam Papa Sow bu Gora Sock ñëwee ñu indi ko Guy Tangage ex Papa waroon naa forcer ni day ñëw def ko par la force wala moom moo waroon a temporiser affaire xam nga ci couloiram la loolu moom seen CNG rek moo ko mën a atte parce que ki nekk ci couloiram am na sañ-sañu jaar ci couloiram dem mais ki ki baare ay sabaram teg foofu itam mën naa ne ay euh, adversaire bi muy bëreel warul mën a jaar foofu ci sabar yi. mais est que ay tëggkat tamit war na nañoo mën a téye mbër alors que ñoom duñu adversaire mais plutôt accompagné. du yoon tëggkat est-ce que am na pouvoir. du téye boo xamante ni yow fayoo ko àndoog moom ba pare ñëw nga ni ko doo jaar fii ngay jaar parce que ki may tëggal moom moom moom moom ma fi teg. du yoon dama ne la man démb li ma daj ci euh, tam tambour major bi. Euh, booy boobu ñu naan moo moo xaañ. arrêté naa ko dëmb lu mat quarante fois mais dégluwuma faalewuma ah dafa àndoon xadar. dafa noo dëmb man gis bi ni ma ko gisee démb dafa xabtalu dëmb bi muy ñëw comme cité mu ñu ngemb la. maanaam dafa indaale xadaru boppam dafa indaale hmm. booy boobu man sama doom la. dafa indaale xadaru boppam. parce que ji nga euh, maa ngi koy dégg ci benn interview. mu ne ba ñu ba mu amee sept la commencé ànd ak Siteu ñoo jàngandoo ñaw ñoom ñaar ba nekk ay ay maître kon bu ñu demee ba kii nekk mbër kii nekk euh, euh, tambour major euh, séq nañu relation boo xam ne ñoom ñoo ko xam mais bés dafa mel ni tambour major moo doon bëre man seetlu na loolu dem lu mat quarante fois fiis may leen ñu may leen ñu. booba coow li amagul. dafa mujj Cheikh Sarr mi nga xam ne euh, CNG la ne dama ko ne dimbali ma ngir yàlla dem arrêté ma kële mhm. te booba cité laa doon dugal mais mënuma may ba euh, dañu mujj arrêté ko mu mu arrêté may leen léegi nag nañu tuusal cité parce que tam euh, micro yi dem dafa xaw a faible micro yi dafa xaw a faible da ngay boo boo demee ci digg géew bi sax boo dee wax lu ñu la dégg il faut nga ñëw ba ci wetu micro yi mën a wax ñu dégg la waaw mais daal. kon tëggkat bi am na ci part de responsabilité. bu rëy am na ci part de responsabilité parce que coow li moom la topp fii mu a que waxee ñu ne géwélee ko xañ mais koo bañ ndax nee moom ñëwul pour yàq làmb ah. mais dañu ko dong puusal mu ne ko doo jaar fi loolu loolu xam nga géwél yàgg na ci géwél yàgg na ci géwél yàgg na adversaire u mbërëm mi mu andi na day jaar fi mu ne ko doo jaar mais mo Papa Sow am na sañ-sañu jaar foofu parce que couloir am na. te tëggkat du ko téye. te tëggkat du moo tax euh, organisation bi moom moo manqué ni mu manqué mooy tambour major yi kenn ku ci nekk te it xam naa ne loolu CNG dina jóg kenn ku ëndeeti sa sa euh, say ndënd ñu defal la kaaf boo xam ne barrière ko bàyyi fa ñaari arkaat yi ñu taxaw. bu boobaa doo génn. mais instant yi amatina doole ci làmb boo gisee. ni ñu ah. di traité. parce que démb alkaati yi nañu. te teewoon li am am na. alkaati 700 policiers lañ jël ak ah. ay gendarmes. mais ji nga làmb làmb moo nekk faculté boo xam ne. Euh, euh, bu doy waar bu doy waar bu doy waar man damay dem ba yërëm alkaati yi parce que sama yërmande ci alkaati yi mooy bëgg a lamb ci biir. bëgg a sécuriser lamb yi ci biti bëgg a séc accompagner euh, amateurs yi ba kenn ku ci nekk ñi beg jàmm man fekk nañ ma ci biir géew bi dem na ma euh, gaa yaa ngay euh, yenu moto yi. waaw na ma fa. gaa yaa ngi yenu moto yi ñu ne ma annoncé ne arcades yi sécuriser nañu foofu ba kenn jël moto kenn mais booba ñi ci biti ñoo ëpp ñi ci biir. xanaa xamul ne lamb ji fees fees démb ñi ci biti ñoo ëpp ñi ci biir. xoolal comme li nga wax démb ñun démb ba ñuy jógee stade dem di jëli Papa Sow pour indi ko ci euh, ànd ak moom ba ci arène bi ba ñu dikkee bu buntu stade foofu dafa mel ni tulleeg maale dafa dem ba police yi amatuñu pouvoir xeer yi xeer yi mel ni euh, grève grève nationale nit ñi di sànni xeer partout muy dal ci oto yi ak fépp. xam nga fi ma wàccee ca rond ba ca rond ba la ñu mujj droité mhm. ah, ma dox. ron point balaa doxe ba buntu làmba ja mais ñaari arcade ma dar parce que booba xale ya ñu ngi sànnante ay xeer do mais ku ñëw seetaan si làmb xeer dar la ci bët sa bët tuuru boo yëgoon doo dem làmb ah mais làmb euh, se man daal sécurité làmb daal am na lu bare bare bare bare lu ci des te boo gisee arcade yi dama leen nee naa la arcade Euh, mënuñoo téye mbooloo moo xam ne ay centaine de personnes la ñu fukki alkaati wala ñaar fukki alkaati bëgg leen a kii ñeneen ñi ah euh, euh, vraiment xoolal sept cent alkaati mhm. sept cent takk der ay gendarme ak alkaati mhm. te teewul lamb ji am violence mhm. kon yaakaar naa ne war nañoo seetaat suñu bopp CNG xoolaat ni muy ni muy article yi muy teg ci lamb ay daan yoo xam ne ku def loo war sa def ñu sanctionné la ba nga xam ne ku ci toog ñaari at bëre rek commencé waaye sarax leen ma ngir yàlla ay waay baal leen ma mais baal balu boobu ngay balu war nga ko war a mën a jomb war nga ko war a mën a rus di waxtaan ak sa staff muy supporter yi parce que ki xas bëgg kiy supporter gisatul dara ci àdduna lu mbërëm waaw kii ànd ak mbër mi itam xoolul dara lu victoire da ngay gis ñu daan mbër ba pare ñi ànd ak ñoom di daanu ay rab ah di daanu ay ay yu kenn xamul mais loolu jaru ko yow kuñ ci xaañ te ku ci def erreur ba ñu jàpp la buñ la yóbboo police mbër mi danaan xaw ma ko ah. mais instant bi fi lamb toll est-ce que euh, du ñu wàññi jël responsabilité bi di ko sëf CNG ndax CNG ñoo ngi tëral ay charte CNG ñoo ngi def ay sanction ak lépp te mbër yi tamit du du supporters yëpp la ñuy xam dinañu xam ñi sës ci ñoom mais ñi sësul ci ñoom jóge ñi jóge ci région yu nekk ñi jóge ci quartier bu nekk ngëw ñi supporter leen du ñu xam ci lu ñu nekk ndax démb man lépp fa la ma fekk gis naa ba ba ba kii di di bàkku Papa Sow am yenn ci supporteru Cité yi doon jël ay sachet ndox doon ko sànni ko sànni gis naa tamit ci beneen côté bi te boobu ay takk der ñoo ngi fa. Mm. am ñoo xamante ne ñoo ngi buddu chaise zone yi. Mm. di ko sànniwaat ci biir arène bi te loolu yaakaar naa ne CNG jël na ci ay matukaay bu nekk. voilà donc je pense que ne responsabilité bi moom ku ci nekk yaa ko war a jël personne. xam nga euh, dama ne la tambour major yi nga xam ne ñoom la mbër mi indaale kenn ku ci nekk couloir ba nga féete ñu teg fa sa tambour major xam ne boo jógee da ngay jubali ca ca sa tambour major. mais jël tambour majoru euh, couloir couloir bi papa saw taxoon euh, nekkoon bu fekkoon ne ay tambour majoram lañ ñoo fa ne bu fa jaaree jàmm rek a fay am mais euh, tambour majoru si tey ñoo fa ne te ñooñu xañ na nee nañ leen bu papa saw jaar fi avant ñuy ñëw parce que sëriñ ci lu ne la ñuy gis man wax naa léegi na la avant may ñëw làmb ja lañ mën a tey làmb ji du sotti ah nga xam ne kon Euh, il faut ñu yaraat suñu bopp xam nga lan moo am bu sutura toxoo sa toxu yar toxu fan mënta gudd te xale yi kenn dowatu ci su booxul ma la te kenn sàkkootu ci yàlla na gudd fan te barkeel te euh, làmb àgg na foo xam ne tey di fac de développement boo xam ne fii ba France États-Unis Italie Allemagne euh, ku nekkay seetaan lamb bu bésu lamb jote boo génnee ci mbedd yi doo gis kenn ñëpp ngi ci télévision yi noonu noonu ñu koy defee fii au Sénégal noonu lañ koy defee ci pays Afrique yi noonu lañ koy defee ci pays européen fépp lamb la ñuy seetaan léegi nag lamb ju feese ni démb lamb ji ñu préparé deux ans et quelques tey lamb ji mujj ni vraiment gàcce la ci ñaari mbër yi gàcce la ci ñaari mbër yi parce que bu ñu xañ na bu ñu waxtaanoon ak seeni supporters lii du am gàcce la ci ñun géwél yi parce que ba keroog ñu wal bu saba ah bu ñu waxee rek ñu ne diggante Papa Sow Siteu ñu ne géwél yee ko yàq te nee naa la euh, géwél yàgg naa ànd ak géeram le 8 février 1834 bi Matar la Khary Diop mi nga xam ne moo doon Serigne Ndakaaru bi mu daanoo foofu dafa woo sama maam man maam Ndiaye Penda Joojo ne ko demal ca dem ne leen daanu na mu ne ko man yow foo jëm yóbbu ma loo yor may ma boo waree waral ma may dem di annoncer sa daanu ñu dóor ko balu bopp mu daanu ci wetam noon la mag ñi daan ànd géer ak géwél yàgg nañoo ànd mais fu géer dee géwél dee fa kon bu ñëwee bu lu ah, mel ni looloo ngi noonu loolu la léegi nag fu géer dee géwél war naa de ci wetoon mais nag ci kaw ay conditions yu leer yu tegu ci yoon xam nga démb li tax lii tegul ci yoon mooy couloir bi Papa Sow ne couloiram la am na sant sañ-sañu jaar fa géwél bi itam fi mu teg ay ndëndëm moom di tëgg am na sañ-sañu ne kenn du fi jaar. mais xadar bi moom la. xadar bi mu la continuer xadar la booy boobu ñëwee démb man sama doom la. mais dégluwu ma démb ñëw naa ba ci moom ne ko fiis mu naa ah, ma ne ko dimbali ma ngir yàlla euh, tëgg ngi yem ci mbasa mbasa buñ ne mbasa mbasa gin taj rek moo ci des ah nga dimbali ma ngir yàlla ci la mujj taxaw bay dem ba nag Vieux Sang dafay maama dafay baayam maamam di baj géwél ndakaaru bayam tëggal maam góor gi tëggal mbay gay ba mu ëgsi tey ci dem ba bi Moustapha Gueye ñëwee eh, gis nga eh, Mbaye Gueye Faye di tëggal Moustapha Gueye ba mu mujj ci léegi ci Baye Demba eh, géwél day fonk boppam géwél day fonk moroomu géwélam géwél day fexey ba respecté ñi nga ki nga xam ne moom lay tëggal